attention Tapha Tine sa tànk yi. dafa ñoom ñaar. nee nañ tekk. Tapha Tine Boy Niang. Boy Niang cokkaas na. borom teraanga yi Basirou Ka ñu ngi lay nuyu. Boy lamb ji nii lay jeexee ñoom taw. waa lan la. Boy Niang mépp na waaye demul. waa lan la. Tapha cokkaas na gauche. Boy Niang di teg di ko aspiré waaw mel ni ku ko ragal di dellu ginnaaw te loolu dinde la ko ñëwal ci diggu géew Malick Thiandoum bu kii la Malick Thiandoum arbitre sifflé waat na xam na ni Boy Niang Taphatine xam na ni Boy Niang tactiquement lay bëri bu yé Boy Niang cokkaas na Taphatine ko tap Taphatine a ëmb rek di direeku wàcc ci ay tànkam. da ko mbaar na mu bëree woon la bëree moom. Tapha Tine Boy Niang. da ko mbaar. Boy ñoom ñaar ñu ngi lay doon eh. Boy Niang cokkaas. Boy Niang dafa bëgg Tapha Tine cuwaat loo moom. Boy Niang ma ca saako ya. Tapha Tine diree ko. loolu la bëree def gauche. loolu la bëree jubalees numéro 2 daan ko. demee ndeyjoor ba ci yàgg mu demee càmmoñ. waa Tapha lu muy waaj day dem. da koo cadré. Tapha lu muy waaj day dem. Tapha Tine ëmb na ko. Tapha Tine eh. Boy Niang bi door na. Boy Niang door na bu dal. Boy Niang Tapha Tine dafa énervé loo. bu énervé rek combat am yàqu da koy cokkaas. bu yàkkamtee combat dara dootu fa des. waaw mais gis nga déplacement bi bu rek lii bu jógee léegi lay doon déplacé wu yëpp Tapha Tine ko topp ñu ngi xeex. Boy Niang na droite. ñu ngi riposte. Tapha riposte bi dafay yóotu de. Boy Niang door na droite wala gauche. gauche songoo nañu na ko jàppante nañu kor na ko kor na ko. ah day daw génn. Boy Niang daw na génn. ah way ah ah kor bi kor bi. loolu la doon daw kor bi kor bi kor bi la doon daw. kor bi la doon daw. kor bi la doon daw. Ah avertissement ah Boy Niang. ah oui moo yey. pour sortie deuxième avertissement. ah oui Boy Niang. Tapha Tine a ngi direct ko. Boy Niang ngi tekk ndeysaan. siggi na tim Boy Niang. drapeau Pape Diop la siggi tim ko. Leewtoo production moo ko tëgg. ko xool jaxran. laay laay boy Tapha Tine door na. gauche la door. mais non door la. dóor dóor bi yóotu la Lamine. da koo cokkaas. ñoom ñaar ñu ngi lay daa bëggoon changer tànk ba si yàgg mu nii mooy delloo wàcc na tànk. Boy Niang wàcc na. Boy Niang dóor na Tapha Tine fayu na. Boy Niang Tapha Tine. ñoom nañu Boy Niang day def une deux une deux. Boy Niang ak dóor yu dal. Tapha Tine daa bëgg jàpp ko il observe carrément xam na loolu. waaw Boy Niang très bañ mu jàpp et très mobile. waaw. Tapha Tine cadré ko digiree ko. door na ko gauche. Tapha Tine ak Boy ko. mais Malick am indi la Boy Niang door na door na droite bu dal. am indi la. Boy Niang door na dooraat. dooraat la. ñu koy déplacé Boy Niang def déplacement. ah. la ilaha illallah tactiquement Boy booru saako yi de faire un combat intelligent. liir na Tafatine. mais Tafatine lañu ko sant ma koy def. waaw jineekul topp ko bul dajeeku wàccal say tànk. dafa doon dafa jokkaas taf na ko ca saako ya. ñaar lang lay bëre. dafa jël Alaaji Cerno ñoom ñaar ay mbëru wet lañu. dafa dooraat na booy ñaar fay na booy ñaar riposte mu jël. riposte boobu mu def retrait de corps. waaw. booy ñaar Tafatine. booy ñaar tafaatin booy ñaar door na tafaatin fayu tafa taf na ko ci saako yi. mais booy ñaar door na ko ci coup de dégagement. tafaatin a ngi ko sëkkatal. parce que booy ñaar yi moom booy ñaar. tafaatin door na booy ñaar door na ñu ngi xeex. ñu ngi xeex. attention booy ñaar attention tafaatin. tafa door na tafa cokkaas na ko gauche. droite bi la booy ñaar di xaar pour jaawaat loog moom. moo tax tafa gauche rek lay ñam. ta gauche lay dóor. waaw lamb ju gauche gauche la. la koy def. yee Boy Niang dóor na. jàppante nañu na loxo bi. ñu ngi damante baaraam. damante baaraam ñu ngi damante baaraam. Boy Niang génn na saako dina am beneen avertissement. dina am beneen avertissement. Tapha da ko sëkkatal. way Boy beneen avertissement ñaari avertissement. deuxième avertissement. Boy Niang am na deux avertissement. ñu ngi lewtoo ñoom ñaar. Boy Niang ko bëgg yóbbu à l'usure. waaw. da ko bëgg a déplacer bëreloo ko ba mu sonn. waaw. daf ko bëgg doxloo mu xoox. moo tax l'endurance la résistance la condition physique am na solo ci combat bi. xeex nañu Boy Niang Tapha door na. Boy Niang fayu. Boy Niang du taxaw. Boy Niang du ko fa xaar. déedéet du ko du ko fa xaar. Tafa gauche. Boy Niang dolli ko mu def retrait de corps Tafa. gauche gauche. dooral gauche ma door gauche. Ah, moo tax Tafa dafa mel ni dañ ko di droite bi bu mu a jóg. waaw déedéet. buy jóg na fekk dara. mooy faay bi. ye Boy Niang jël na ko. jël na ko Tafa wóomi na ko. jàpp na ko ñoom jàppante nañu. jàppante nañu Tafatin ak Boy Niang jàppante nañu. jàppante nañu lan mooy am. ràcc nañu Tafatin ak Boy Niang jàppante nañu. Tafa buy rocci loxo bi. lan mooy am Boy Niang bul nangu mu rocci loxo bi. Boy Niang fa mu jàpp baax na. bu rocci ma ngay jéem a faq. waaye tàggalikoo na. waaw waaw. tàggalikoo nañu. dama lay kor doo ma kor. non du ko du ko ko dóor. dama lay kor doo ma kor. Boy Niang gi déplacé wu. dama lay kor doo ma kor da ko bëgg a sollal Tafatin. da ko bëgg a bouger. waaw pour yóbbu ko à l'usine mais xam nga ni Tapha Tine booy ah fagoon nañu kor na ko kor na ko Boy Niang génn na Boy Niang jàng na Tapha Tine Boy Niang kor bi lay bañ kor bi ko ko fekk mais Lamine kor am na nu ñu koy bañee ah fel ko da fel loxo bi mu jàll nga aw ci flanc bi ak Tapha Tine eh door na droite Boy Niang génn na avertissement Boy Niang dina jël troisième avertissement. huit minutes de combat. Tapha Tine domine les débats. Boy dina jël troisième avertissement. oui Boy Niang am na troisième avertissement. arbitre sifflé waat na. Tapha a mûri. Tapha ngi doxat ci kawam ñu ngi damantey baaraam. Tapha bëggul daanu ci piège bi ko Boy Niang di. déedéet ndëgg sërëx bi. kenn bëggul daanu. Boy Niang Tapha yee xeex nañu Boy yee wéyale na ko Boy Niang na ko mu tërëf da ko wéyale da ko wéyale da ko kurpeñ baa njëkk non door wéyale ko nii la bërek Sa Thiès daf ko weñ daf ko weñ dafa jàll taxawaat dafa été intelligent dafa yokk weñ bi dem bu taxoon da bu taxoon Tapha Tine il faut que Tapha def attention il faut que Boy Niang ah oui accélère combat bi. Ah parce que avertissement yi bari na. Ah. bari na amagum na 3. amagum na 3. Boy Niang cokkaas na. Tapha Tine Boy Niang. Tapha dóor na. dafa cokkaas. Boy Niang dóor na. Tapha dóor na. dóoraat na. gauche gauche. quatrième arrondissement bi la ko bëgg a jox. gauche. Boy Niang fay na kor ko. Tafa. kor na ko jàppante nañu kor na ko. kor na ko. Tafa jàpp na. kor ku ne jàpp na. ndax fàq du lay lay lay jar dal. jar Tafa dafa diis Tafa door na percute. Tafa door na bëri na lu rëy ci de. day ñëwaat bi Boy Niang jàppee moo gën a baax. fàq na ko wéyale na ko Tapha bañ na. bañ na daa diis. Boy Niang ni mu toll doole jëpp na ko. daa diis. fàqaat na ko Tapha bañ na. laay laay la laa. Boy Niang gi ah, rëy. Boy Niang bëre na Tapha na. Boy Niang Tapha Tine. ma ne Boy Niang ah, il y a de ah, il y a de la technique. il y a de la tactique. il y a tout il y a de la bagarre. bañ na mën dañu mën bëree. dafa dafa luur dafa mën bëree. Boy Niang dafa mën a bëre. waaw mën bëre lu lal. mu laali ko parce que mën na bëre te loolu ci mën a bëre la bokk. <laughs> ñoom ñaar dañu mën bëre ah. nii lay mën a mel. xool daf rek léegi waxoon combat préliminaire ah oui. day joxe auguru attention. Boy gi koy fekk. Tapha ngi door 11 minutes de booy ñaa ngi sëgg. daf ko déglu ah rek. Tapha Tine dengeñ na ñaa Tapha Tine. fii ak pexe jege nañ yi de. jege nañu saako yi. na trois avertissement. est-ce du ko jéem a puus. am quatrième. waaw c'est possible. waaye Malick doon it. <laughs> wut avantage. Tapha Tine Boy Niang force. calcul. La lutte c'est de l'intelligence en mouvement. wax nga dëgg Malick ku ne yaa calculer. ku ne yaa ngi déglu sa nu muy noyyee. mooy ñaar tafantin épreuve de force. bu ñu jàppante nga newoon na ko bu ñu jàppante ah? nga xam maay kan. waaye waaye xam na mooy kan waaye moom xam naa ne tafantin booy ñëw. ñaata minute la ñu bëree gu Malick. tour mën na fi am de. 12 minutes tour tour. 12 minutes de combat. dama ni mën na fi am. mën nañ la tuur mën nañ la faqat. booy ñaa daal téye loxo booy ñaa mën na jaar ci fly mën na jaar ci fly waaye Tapha bañ na. da bëgg a mu bañ. booy ñaa ci fly yi la bëgg a jaar. mu ne ko doo fi jaar. xalaa Mandir Badio. xalaa xalaa doo fi jaar. loolooy wurewi. Boy Niang numéro 2 Tapha Tine ah, ko waaw waaw door na ko hypercute waaw gaaw gaaw yóbbante na ko ah, hypercute day jël beneen avertissement da koy jël non non génnul door na ko waat dugg si waat la Tapha Tine Boy Niang dafa moytul lu la naqari mën nañ ko remise Tapha door na. waaw ah na saako ah, yi avertissement. day jël quatrième da koy bu ma doon Tapha. Ah da koy jël damay entraîneur Tapha dama koy téye. taxawloo koy jël. gis nga Mbaye Ndewa nee na ko ndànk. waaw taxawal léegi. maintenant bu ma yoroon Tapha Tine dama ko daan teel sa ñu avertir leen yéen ñaar comme abi jeex ndam loo amee baax na du ah war na amee baax na waaw ah waay mi koy wax toogal mi koy wax taxawal 14 minutes de combat Malick bu jeexee ci ay avertissement dina am coup inachevé mais combat bi neex na quand même neex na y a pas de passivité ils se nii sax ci am xam naa la yow léegi Tapha day taxaw xaar ah day xaar kay. mais ya kenn demee te taxaw Tapha bu dëree taxaw fermer gardam taxaw ci ay tànkam foo koy jaar. xaw ko. moo moytul nga jël avertissement comme moom rek mu jeex. Boy Niang door na cokkaas na 14 minutes de combat il reste une minute. Boy Niang ak Tapha Tine. amoo bu ñu mi bu ñu mi bu ñu dellu see jël 15 minutes la ñuy bëre. xeex nañu. boo ko jëlaatee lamb ji jeex de. Tapha Tine Boy Niang. booy lay taf ci saako yi pour nga jël cinquième avertissement. Boy Niang dóor na. ah way da jël da jël. Tapha da ko bëgg ci saako ah, yi jël. bu ko dugalee bu ko dugalee ci ruxu saako yi du mu génn de. na ko. da koy jël Malick da koy jël dafa door na dafa dooraat na. da koy jël ji jeex dafa door na sangoo nañ. dafa ji jeex na avertissement. da ko door ba mu daw ngeen. làmb ji jeex na avertissement làmb ji jeex. Tapha Tine na Boy Niang. 5 avertissements victoire de Tapha Tine Boy Niang numéro 2. lamb ji jeex na Tapha il a dominé. il a dominé. il, a poussé à la faute. à la faute et la dama ne kurpeñ bi mu taw kurpeñ bi mu taw ba jël cinquième avertissement bi ko doon mu daan. tactiquement. Tafa est bien conseillé. Ah daf ko ëmb. ah oui. mais non il a ah di door di ko yóbbu ba mu yegg. il a ah été très intelligent juróomi yoon combat bu njëkk par la. waaw euh, règlement moo ko daan parce que boo xeexee dem ca làng ga ñu génne la juróomi yoon. combat bi dañu ko àtte jox victoire bi. kon booy ñaar règlement moo ko daan tey. mais sur le plan tactique.